asalaamaaleykum mbokku internet yi ñuy seetaan si www.igfm.sn. tey si seen rubrique invité du jour ñuy am mbégte di dalal benn euh, homme religieux ñu gën ko xam si turu Cheikh Babacar Ndiaye ñu di ko woowee tamit sang Babacar Ndiaye euh, Cheikh bi ñu ngi ñu la seetaan. salaatu wasalaam baax di nuyu mbokku àddina bi yëpp rawatina mbokk africain yi waaye ñu ngi beral waa Sénégal. Cheikh Babacar Ndiaye pour ñi nga xamante ne xamuñu ko euh, dafay muxaddamu Cheikh Tidiane jokk ci njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima. Euh, Cheikh bi gannaaw buñ la ziyaare euh, ku wax Baye Niass wax Zeyda Mariam mhm. ndax moom doomam la mhm. dafa yore benn école boo xamante ne day jàngale franco arabe mhm. léegi nag ren ci 2015 maanaam année bi ñu bi ñu weesu dañ ko fal femme de l'année. Mhm. kooku di doomu Cheikh Ibrahima ñu remarqué ko ci li def. Mhm. ñu bëggoon xam yow en tant que muxaddamu Cheikh Ibrahima. Mhm. lan mooy sa xalaat ci nomination boobu nga xamante ne moom en tant que soxna d'abord. am na ko. waaw ñu ngi santal bu baax di am mbégte ak kontante ci interview bu rafet bi ñuy defal soxna su tedd si waaye jóge koy jëm ci ku tedd. mooy Seyda Mariam Niass bint Ibrahim Niass radiyallahu anhu loolu ñu ko fal noonu wala xarba du njombe la tax du njombe rek mooy kilifaam waa juróom wu tedd wi di Cheikh Islam Aj Ibrahim radiyallahu anhu yaakaar naa képp comme Cheikh Ibrahim ci wàllu xam-xam ci wàllu diine ci wàllu àddina bi yépp Cheikh Ibrahim ku mel moom wax dëgg yàlla gisaguñ ko ñun eh, wax na ne moom Cheikh Ibrahim sax rek ci li gën a gàtt nee na man Cheikh Ibrahim ñaari sëriñ la am sama sëriñ zahir ak sama sëriñ ci baatin sama sëriñ saada mooy kitaabu sunna kitaab mooy téere borom subhaanahu wa taala mooy alquraan karim sunna si yunte alayhi salaatu wasalaam bàyyi na ñaari mag ñaari ñii ku yàlla bind rek ku yàlla bind ci àddina maa la ko dégg sama sëñ ci baate mooy Cheikh Tidiane te du ma teqale ak ma lu mel ne xëpp ak xëppi kon ku mel noonu ku tedd ko nu mel noonu ku dégg noonu diine ku dégg noonu Alxuraan karim jur doom te dañuy wax tuuti na alwala suru ab bi doom mooy mbootu papam ah, kon Seyda Mariam bu fekkee ne moom itam uut na maqaamam papam ci maqaam boobu nekk koo xam ne ala kulli xaal mu ngi tasaare diine islaam mu ngi tàggat ay ndaw yu bari di jëmbat ci xam-xam boo xam ne incha allah ku ci mag ku ne da nga am teranga ci la subhanahu wa taala te mooy alquran ak hadis téere yëpp bëri nañ waaye téere bi nga xam ne mooy mutazahiru téere yi téere yëpp bi ci gën a wér mooy alquran kon nag képp ku yàlla may alquran nga am leeru alquran subhanahu wa taala dégg alquran bu baax di jàngal ay xale yu ndaw di leen tàggat di leen yóbbu ci alquran ba ñu koy mokkal guddeeg bëccëg te bu ñu xoolee sida Mariam zahir yan nii rek ñaati million ngi nit la mokkalu alquran du waa Sénégal rek Afrique yëpp doomu africain yëpp ñu ngi màbb di ñu ci kër Cheikh Ibrahim fii ci kër Seyda Mariam Niass Lawal di mu alquran def na ay daara yu bari foo dem am na fa daara lu tax mu am fa daara parce que moom li muy tey moom ñëpp bëgg nañ ko man na ko tamit na ko léegi nag bu fekkee dem ba jamono ñëw ñuy seet ci borom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ràññeeku ci njàngale ak jàng ak jàngale ñu tànn ko moom Seyda Mariama année bii léegi ñu ne mooy femme de ne encore ci lan ci liggéey bi mu liggéey borom subhanahu wa taala ci loolu ba tey yaakaar naa la kulli xaal wala xarwa du njom mi li tax du njom mooy bu ñu xoolee Cheikh Ibrahim bi muy wuy yun ci am sam di ko bàkk ci ay maqam yu kowe kowe kowe kowe kowe kowe daf naa wax ne moom yun ci am moom Cheikh Ibrahim Muhammadu umdati Muhammadu wasari ana tofali yu ay boobu ne musamma te Sayda Mariam ala kulli xaal même zahiri nii bu ñu xoolee fi mu dëppee tur bi mooy Mariam yaayu Insa te kooku alquran tagg na ko tagg na ko ba ne euh, kaanat mina qaanatiina jigéen la mais jigéen la kon alquran moo ko góoral kon Seydina Mariam tamit dafa mel ne kon jigéen la ci mazhar waaye maanaam yëpp góor la da tax ma góor la papa moo ko bind bàyyi mu ne amal maqasidu fa asu aarifin majzubin bi zaakal aarif ay bal man baqaw badal fanaa'i wasalaka nahjuratu xaqu wan su malak xaasa huwa ku mel nii di Seydi Mariam ak kenn ku mel ni moom xaasa huwa ànd ak man Cheikh Ibrahim xaasa huwa rajulun unsan aw sakran kii góor la donte mazhar bi jigéen lay nekk waaye mu góor lay nekk tabe bi góor la kon Seydi Mariam bu ñu ko tànnee ci année bi mu nekk koo xam ne moo gën a ràññi ko ci année bi loolu dagal la parce que ki gën a ràññi ko ci àddina ci islam tey mooy bappam kon al wërsëru ab bi kon papam moo gën a ràññi ci diini islam moo ci indi xam-xam boo xam ne kenn xamu koon gëlëmal ñëpp ci xam-xam boo xam ne xam-xam bu set bu sell ñu sëriñ si taxoon nekkoon Sénégal di ko weddi tey bu doomam ñëwee tey ba jël lu mel noonu dëgg-dëgg yàlla dañuy wane kon euh, yàlla fay naat bi xoromam euh, mu mel ni keneen ku bokk ci njabootu Cheikh muy Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. mi mhm. nga xamante ne mooy imam Medina Baye. Mhm. ñoom tamit ràññeeku na ren

sikk amu ne borom xam-xam la sikk amu ne njabootu Cheikh la sikk amule moom moomay mid na Cheikh Ibrahim mooy imaam mid na Cheikh Ibrahim sikk amu ne waajur wu tedd wa kaka jur waajur doomu Cheikh Ibrahim la sikk amu ne ki nga ne moo ko jur te papaam tamit ku set la taalibe Cheikh Ibrahim la kon ku mel noonu lim bagage yi mu boole dafa bëri yàlla may ko kon mu nekk koo xam ne ku teel a jàngale alquran ku teel a mokkal alquran la. ku teel dem bitim réew la ku teel a man di xam diini bi la ku topp ku topp teel a xam lan mooy islam wax dëgg yàlla kooku ku set la ku set la ala kulli haal léegi nag eh, bu fekkee ne jamono doxaat na encore wax naa ko léegi mu seq ko ci Cheikh Ibrahim radiyallaahu anhu borom xam nga bëri ba mu seq ko ci ci doomu Cheikh Ibrahim encore man xam ko bu sell boobu ku sell di mooy euh, soru sell soosu papa mi tamit ñu muy ku ñu xam di taal bi Cheikh Ibrahim ba maga maga maga ma Seydina Alioune Cissé kooku nag kon su boobaa. bu fekkee jamono dem na ba ñu xool àddina bi yëpp mu nekk ñu toll cinquante personnes yoo xam ñoo gën a fës ci ci imaam yi ci xam-xam bu set bu la ñu tànn ko ci biir mu nekk ci benn moo nekk benn tànneef la ñu tànn ko encore ci biir cinquante personnes yi treizième encore ci monde bi ci monde bi kon ci Afrique mu nekk mu nekk mu nekk encore troisième personne bu ñu xoolee am yooyu yëpp dañuy seet cinquante ci boppam lan la ci maanaam cinquante yàlla dafa woon subhaanahu wa taala waxoon ne képp ko def ku ma defal benn dama demal fay fukk kon bu ñu jëlee pays bi nga xam ne mooy pays adru Quds yi ñu tànn ko fa moom foofu mu am fa 10 ñu ñëw ci xaqatul Muhammad ya tànn ko mu am fa 10 ñu ci xaqatul Ahmad tànn ko mu nekk fa 10 ci xalaat mu nekk fa 10 ñu dugg naa dugg nekk fa 10 mooy xawru ba naasut kon 50 personnes bi ñu ko tànnee lii wir na parce que lii la bàyyi woyoon bàyyi dafa waxoon ne saral Mustafa laylan wa waafa bi xam gis nga xamsatin mu ne na aarit naa biha wala fadli mutaqaddim kon ba fekk waaye bàyyi wane bu yàgg ñu dem ak jamono ñëw ñu tànn njabootu Cheikh Ibrahim mu nekk cinquante personnes ci àddina mu bokk ci looba kon dagan na lii rafet bàyyi woon na ko bu yàgg démboon ci biir loolu encore ñu tànn ko mu nekk treizième personne encore bon treizième personne bi tamit lu muy firi que bu xoolee treize bu ñu xoolee ba bu ñu xool laaw ahad ahad boo compté boo ko isaabee di nekk treize nga xool encore bàyyi ñes ci boppam boo xoolee bàyyi mi ngi ko mu nekk treize encore bàyyi treize ñu xool encore bàyyi bu daan waxtaan yàgg mën ne waaw waaw waaw waaw égal treize encore waaw la ak liif ak waaw égal treize ba tey kon treize treize treize ñu dem ba tànn ak njaboot sànq ci biir mu nekk treizième personne loolu ma ne wala xaraw ba tey bay wax na ko bu yàgg leer na ci islam leer na ci xam-xam yàlla subhanahu wa taala ci képp ku yàlla xamal kon li dagan na ci moom rafet na ci moom ndaw yàlla yàlla biir Afrique encore ñu dem mu nekk encore troisième dafa waxoon ne fala aarifu indi man fan ni fisaati maratan wa fa sifati maratayni وفي الاسم مرتن سوبر فينا من اثبت الوجود بالحقيقه ثلاثه حنا ساسيون بو فك با نيت مقامين كان موي موي دوند شيخ ابراهيم لا باي فو نيت ما تي لي وي كون بو ني با تان جوبر شيخ ابراهيم نك 300 بيرسون تي بيت افريك واخ دي يالا كون با تاي لولو باي ونيكو بيغ دايمان كون دال دغ دغ بيرو باي دال توسو باي سا كرام مو غني فين سي القران باسكو ورنا سما كرام القران شيخ ابراهيم كون بليغ باي كرام مو غني فين دايمان زارك بات ييب كون امام تيجان بي wér na ci moom ne maqam yi leer na ci daay saayra bàttin kon te imaam man dama wax toujours ma ne bokk na sax bu ñu doon ut Sénégal xataa Sénégal ñu toxal Sénégal kese di xool imaam duñ jël mënuñ jël kenn ku di imaam ci lan bu dee xam-xam la ci man Sénégal moo fa ëpp xam-xam bu doon fasaxa la ci xam moo fa ëppale bu dee encore dal teggiin ak yar imaam ma ci man ñëpp bu dee encore solo solo ba nit ñi xam ne kii day ku set la ku sell la moo ci ëpp bu dee maandu ragaleel lépp imaam daal dëgg-dëgg yàlla kenn du moom yàlla ko defee noonu yàlla ko fi noonu moo tax bu ñu demee boo xoolee rek mbir su ajjom bu jotee mbir de Cheikh Ibrahim àdduna yëpp jaway fees ñëpp dafa di ko xaar buy dugg si rek xëy bi gi muy dugg da xam ne kii daal dëgg-dëgg yàlla kii am na meeg yàlla subhanahu wa taala bu ñu bi taxaw te dokk hmm, di xutba nit ñi sans këyit sans këyit ni mu koy waxee fasaa lisan bi oh dëgg-dëgg da nga ne vraiment kii am na kon bu ñu ko fayee lii ma ne walaa xarwa mooy euh, Sénégal su ñu waxee Cheikh Ibrahima c'est vrai que xam nañ ko ci Sénégal yëpp mm-hmm. ba bitim réew mm-hmm. Mm-hmm. mais soo waxee Sénégal ni Cheikh Ibrahima rek xel yëpp day daal di dem ci Kaolack dëgg la dëgg la mu mel ni kaw Kaolack jamono yi ñu toll ñu ngi def actualité naka lañuy defee actualité du du si lu lu ñu mën a rafetlu euh, jamono yi ñu weesu dañu am ay xale yu góor yu ñu jàpp ni mhm. dañ doon sëy seen biir mhm. ñu bëgg dem mariage mhm. ay góor ak góor maanaam ñu mel ne wàllu homosexualité ñu jàppee leen ci kaw la ñoom ñu doon sëy liñ leen jàppee nag quelque temps ñu bàyyi leen au bénéfice du doute parce que liñ leen doon jàppee wóoruñu leen d'abord lu mel noonu amee ci dëkku Cheikh Ibrahima euh, yow noo ko jàngatee waaw li may ci jàngate rek mooy yàlla mooy jamono laa tasaboo dëxëra fa ndar walla yàlla mu ne bu kenn nga njoon ma yàlla may jamono bi yeddi leneen war na xaaral sama loxo man ma yàlla may doxal guddeeg ba ci du ko dox nu ma neexee ànd ak loolu yépp nag yàlla subhaanahu wa taala bind mbindaafoon yëpp ñu ne ko ak njabootam yàlla subhaanahu wa taala yàlla tànn nag benn jaam boo xam ne mooy sang boo leen bindaa foni kooku mooy Seydina Muhammad yuntu bëri boobu nag ñëw ci jamono pour defar jamono ji kon yàlla mooy jamono waaye yun borom jamono ji dafa ñëw pour jamono rekk léegi nag jamono moom kenn du ko defar jamono baax na waaye ñi nekk ci biir jamono te xamul luy jamono ak borom jamono lii la ñuy defar si lii ma mission yun tam sam ci ko suuf di laaw yuntu bëri boobu bi mu ootee ci jamonoom samaan bi mu nekkee ba samaan bi yàlla eh, eh, effacé ko samaan di ko beneen beneen samaanaat Cheikh Abdoulaye nekk xalifaam woote xam-xam du te am na ay musulman yu bari ñu tuddee ay Mahamad ak Ababacar ñu ngi def loo xam ne naka sul noonu la donte nag loolu nag ñooy askan ci yun fa yooyu yun askanu ci ñoom kon lépp lu nekkoon ci mbuutee subhanahu wa ci mbir mor war a tey mu ngi ci mu ngi ci mbuut muy nekk fii tey bàyyi oote xam-xam nag da dégg sax yow yaa ko wax léegi ci waxataa moom Cheikh Ibrahim mu ne fa ma aysa man am saa bi kaw laxa saayu yan way jirtu xawla naqaa dammaha rawdu gis nga ko kon bàyyi mu ngi jàngale rek laaw dëgg bi nekk Kaolack googu nag bàyyi taxaw fa woote fa xam-xam bu sell boobu ñu ko kaw la waaye ci biir Kaolack dafa am tamise dafa am ay quartier bàyyi daf ko tamis bàyyi nag indi benn quartier ci biir Kaolack tuddee ko nag mbir de Chabraay mbir de Chabraay li ma gëm lu ñu dof dof dof dof yaakaar naa ci biir Chabraay moom kenn mu fa def nekk su noona parce que dëkk bu ñu aar la dëkk bu am leer la dëkk boo xam ne xam-xam moo fay juddu dëkk boo ne ka fa nekk borom xam-xam la dëkk bi loo xam ne xam-xam rek lañ xam jàng-jàng dong lañ xam ci islam kon dëkk boobu yaakaar naa war a digg ña fa nekk ñu baax ñu set ñu sel lañ kon kenn def du mel waaye nag bu fekkee mit nekk nag dëkk lay nekk comme rek léegi lu bàyyi ñes indi indi xam lu bàyyi ñes set set indi xam-xam lu bàyyi bëri bëri tàng ci xam-xam fokk nag am ñoo ñoo xam ne ñu ngi njaboot ci wala ñu njaboot ci dëkk kawra rek ko naka su noonu la waaye loolu du conseil Cheikh Ibrahima la am. dama bëggoon xam yow en

am nañu responsabilité bu rëy ci loolu gis nga lu bon ñu koy def ci biir réew mi te comme ni nga ko waxee bu jàppee tuuti ay quelque chose jàppale pare bayawaat la am na lu lu nekk ci biir am na loo xam ne bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko président bi eh, maanaam dëgëre jàppee bu baax tam dëgër ku ko def benn du ñaaraat. parce que homosexuel dafa nek lo xam li gën ñaaw li gën haram ci li aram ci la bokk ak benen bi tuddee lesben ñaar yi gën haram ci islam li lii ci la bokk kon doomu diin bu fekk ñoy def li déjà ñom ñu ngi lo ñom ñom ñoom jëri islam déjà ba pare waye nak président Sénégal moy tamit amna sama tal bu reccu lolu parce que liggéey mo dam ñom ñom fa lañ ko pour ben pour ben quartier dañ ko for pour Sénégal président Sénégal mom Sénégal lay wara waxé bëd Sénégal la wara yoré nopp Sénégal la wara diglo du dund Sénégal di kaddu kaddu Sénégal di japp Sénégal di Sénégal di dox dox Sénégal lepp Sénégal la wara que Sénégal ko fal te Sénégal te ful ko ñoo Sénégal fal kon su Baba lepp lu nekk Sénégal te Sénégal da ci wara tax bu nit te nous sa ci l'islam ni ko islam aramalé ay goor di ko defante hum? to yak la yak jiwu la parce que yalla lim ci amma nga koy ji du ko ji foo ko du du sax mukk ya nga yak ya nga yak jiw yalla subhanahu wa taala loolu dafa haram tifaq nday man kon loolu ku koy def rek di sax li li ko li gën haram xaram rek mooy dala wone yow li nga ji mu du sax te ya nga yak jiw yalla subhanahu wa taala te yi yinu sam dafa waxoon ne takkante len ngir gën a bëri len ngir gën a gis nga takkante ngir lu tax mu ne parce que yomal ka bu sa taxawé man yun ma yun sam bu yun tepp ñewé ak seen mbolo man tamit dama ñu ak sama mbolo te man sama mbolo moy baatar mbolo yi ci ci bari way baatale encore ci maantu ak ragal ak xam-xam tawhid lépp moo koy baatale kon képp ku jël ñaari góor ah ci xeetu Yunus salaam ba pare ñu ngi def amoo sax sal dettal kon yaa ngi bi yàq jiw Yunus salaam kon yow lañu soxla yow génn bi na am bu baax farla bu baax ci yu mel noonu parce que loolu dafa xaram ci Sénégal te président bi nag mu cëpp que ñun mën nañu wax rek ah, mais ñu amuñ ñun amuñ dara dóor leen parce que boo ko defee ñu ñu jàpp la amu jag su toog dina xas waaye déedéet waaye nag il sa waxoon na ne soo gisee ko def lu ñaaw ñetti ngoy génnee benn sa sa làmmiñ waxal ak moom fekkee yow mën a nga wax ak sa làmmiñ yow naqaroog ba xam naqar dana la wala boog wala boog sa loxo nga loxo mu ngi di ak sa loxo doole bu def fekk lu am na soqal moom na ko bañ waaye at fu imaan la wax ñetti maqaama yépp ñu ngi ko ampale ci moom di wax ne ñun donte mënuñ jot gars yi mu ci amuñ doole pour jël leen waaye nag am na doole suñ kaddu suñ ko dañ ko yëg ba xam ne léegi ñaaw na rafetu ci islam rafet encore ci ci dara waa Sénégal suñu loxo dana ko bu ko jotee na ko dindi suñu xol moom bañ na ko ba faw moom ala kulli haal amoo si lu xaraam la ci zahir ni moom la ñu war a teg pour kenn dootul ñemee ci Sénégal fii di fi wax wàllu homosexualité. waaw loolu moom monsieur ñu si war a jël islam moo ko jël bu yàgg islam moo waxoon démb ne ku sàcc day dagg sa loxo. islam soxorut loolu boo ko déggee da nga naan kon loo su un méchant wala da nga naan lii daal dafa soxor parce que nit ko war daggal loxo a dóor wala da war a rey a rey su kii da la war a dóor nanga nag islam at yi islam tegoon noonu dañ ko war teg ba tey xamul tax loolu islam dafa ñëw pour jàmmal nit ñi mais c'est sama bi tey maa ngi koy portable baa ngi tey téye naa ko maa ko moom ak sama xaalis ñoo toog ci mbooloo mi am ko noonu dañuy jël ko lor na ma lor na mbooloo ma parce que mën naa ko moom lor na ma dèjà man mi ko jëndoon parce que dama ko soxla moo tax ma jënd ko mbooloo mit lor na parce que dañ tool mbooloo mi kon tubaab nga sa tool nga mbooloo mi kooku nag bu ñu xamoon kan ñu daggal loxoom ca mbooloo ëllëg wane mbooloo mi ci kaw ëllëg bu mbooloo mi kenn du ko defati kon ñu koy defaat na mbooloo ñu kon islam dafa ñëw pour am sa mel képp koo xam ne da nga nekk góor jigéen ci Sénégal gii di def góor jigéen ñu jàpp la la waroon a teg xat yëpp gis la ñëpp gis la waxuma la gis nga xam nga amadou dafa ñaari mo yoo xam ne ci tubaab moy tendre ak pandre bon suma pandre la dana dana dana metti suma ma ne suma ma la pendre su ma ne su ma la pendre waaye nag la tendre tek la ci sama ñepp dina sétan ñu lay filmer di do do yu métti ko mo ñu reela la nak nag day la day la def ay sakatu yu metti ba nga adim yegg ne yow ku bon nga su ko ku ko defati ëllëg ko defati lo mooy la parce que até bala mën valable faw ñu wara exemple bu bu bu bu métti ah. mais maslaa maslaa mooy sa maslaa maslaa eh, ma soo maslaa ma ne ma defaat ko rek jàpp maslaa ma defaat ko rek la preuve jàpp nañ ci ay gars kaso dem kaso moom yàgg kaso métti na d' accord waaye ñu après ñu ginnaaw leen pourquoi ñu ginnaaw leen voilà la preuve kon nag day la war a wu ma wu ma tendre wu ma pendre waaye dina war a tendre nag te nag te nag pendre moo daganoon parce que ñoom génn islam ñu gën dañu gën topp pendre moo dagaloon mais bi la pendre tamit ñu tendre leen doon dóor yu métti ba xam yëg ko ba seen mbokk yëg ba ñu xam ne ñu ñu bon lañ boo leen kenn ko ñemee defati. yow am nga njort ni kuy kuy yëngu ci wàllu terrorisme mën na yeewoo fii rawatina imam. dëgg la waaw maa ngi sant yàlla baax encore ci loolu di wax ne daal mooy imam imam dañ ko fal mu nekk imam mu nekk imam imam lu imam lu ñuy firi muy njiit koo jiite nit ñi nga jiite loolu war jiite nag. en tant que imam ci njub rek njub rek imam dal amul dem ci minbar bi ah wa nag yutu waxoon na sallallahu alayhi wasallam ñun sa waxoon lu mel non neena na waxoon jamono dana ñew dana am ku jang bana har nek imam ci mbolo mi taw ci minbar ba di war nit ñi di mag ñepp jume safara mag ñi jume safara imam bo taxé ci ci minbar lam wara wax dafa wax dafa jëñ nit ñi lu ubbi xol ñëpp ñi di ñi del ci yàlla subhanahu wa taala lii muy im rôle imam mais waxtu woo taxaw ne jalgati dugg ci loo xam ne du sa domaine di xëtani ci loo xam ne yàlla gën yónni sam gërëmut parce que tërësul moo gën a bon ci àddina bi gis nga jihaar jihaar bi islam wax dool lii du jihaar tërësul du jihaar xam nga tax takk ay bomb misaal dem ci mbooloo rawatina na islam ñu ngi gis ci jumaay ak jàkk yi la ñu dugg ñoom far dugg ci biir jumaay ak jàkk takk takk bomb pare mu is bu sa nga rey sa bopp rey ni mbooloo ma yàlla waxul ci jaar fan ci jaar amu ci alxuraan ne wa jaahido fillah ba tax bàyyi daan wax ne wa yi ñu ngi jihaad waaye dañ fàtte fillah dañ fàtte fillahi lañ fàtte fillahi kon wa alxuraan dafa ne wa jaahido waaye xaqa jihaadi jihaad lañ ci yàlla waaye ci dëgg-dëgg jihaar fillahi ci biir jëmm ya subhanahu benn aaya waxaan ne Euh, Yunus parce que Yunus wax na kon al mujaahidu jihar ka dëgg mooy ko xam ne man jahada nafsuhu fi zaatillahi tabaraka wa taala jihar ka dëgg mooy ki jaar boppam delloo ko jëm yàlla subhanahu wa taala lii mooy jihar moo tax Yunus bu daan jihar saayir ba ay doon la daan jihar noonu islaam daan jiharal di xeexe ñoom ñii gañee ni gañee te loolu nit ku ne am nga ko parce que nit ku ne war nga ji ak sa bopp ah. Yunus bi jaar ba jeexee jaar mu ci ci jaar mooy tab bi mu njee dafa ne xaddimtu min jihaadi asqar ila jihaadi akbar beneen riwaaya mu ne raja naa min jihaadi asqar ila jihaadi akbar xaaloo ya rasulallah ku ma jihaadi akbar amu jihaadi nafs wal hawa dafa wax saxaabi ne leen jóge nga ci ci jihaad bu ndaw bi yéen war jëm ci jihaad bu mag bi saxaabi yi tiit na ko ah yonent bi ya rasulallah ñu raw nañ di dama bu ñu diw dagg loxoy diw tànk diw dagg nañ ko rey nañ diw lii mu jihaad bu ndaw bi kon jihaad mag bi lan la islam ne jaam mag bi dëgg moo jaar nafsu wal hawa mais bakkan ak bànneexu bakkan alquran ne ni koo gis moo tax muy te am na bakkan am na bànneexu bakkan parce que fa alhamaha fujuruha wa yow am nga man am naa ku yàlla bi ne ku ne yàlla mu ne yenkaw naa coow ñaari bakkan bakkan bi taqwa la am bii kàccoor la kon alquran ne kon na nga bakkan bi benn fee mu ne waa leen bakkan bi rey leen bu leen rey loolu mooy lan kon rey bakkan mooy na sa xalqi boobu nga xam saay saay la moom la war a rey parce que bi nga xam ne mooy suñu baax bi nañu bàyyi ko fi. kon da jàpp ni daal maanaam ñi nga xamante ne ñooy ñooy def terrorisme maanaam te di ko mbubboo l'islam bokkuñ ci. du bokkuñ ci yëgul sax yëgul sax diine xëñu leen sax dama ne diine xëñu leen sax la xëñu leen la leen jihaad mooy ma la wax nii jihaad diine mooy lan mooy ma soxna ma ñëw ci yow fekk la nga xëy na nga nekk ci loo xam ne xëy na euh, du nag su noonu la du noonu mais waxtaan yow ila sabili rabbika bil hikmati wal mawsidati hasana wa jadilhum bil tiji asan lu ko def ci yow ma tan yow di waxtaan di waxtaan dem fi la nga nek ma ci gën nank nank nank nank rek yedd bu hasisan bama convaincre ci ci xam xam bu ko de nga xam ne ko lii dëgg la nga bàyyi la nga ko ñëw ci ñëw ci lii mu dul jaar mais doo jël ay bomb ba dem ci ay nit leen rey sëñ bi nga effacer ay sa bopp effacer nit ña kon koy jaar de kon jihaad dëgg sëñ bi bon jàpp ni ki daal tàggat ko génnee ci moom ay ngon mbon yi nekkoon ci moom kiiraay ci xol bi li ci nekkoon tudd dëgg efface ko ba mu set wecc ba nga tegal ko leeral suba ci wàcc ko ci lii mu tudd jihaad bii nag ñoo ngi sant yàlla di wax ne ki yow dëgg ci loxoom tey mooy Cheikh Islam Ibrahim Ibrahima Niass radiyallahu lii muy dëgg Cheikh ci ko suuf bi. moo tax ma ne ne ma ne ñooñu du jihaad kat ñooñu duñ jihaad ñooñu dañuy xaru di xaru di di nañ ni comme ça rek waaye jihaad daal sëñ bi ci yàlla lañ def waaye daf fii la xaq jihaad yi lii laa xam ci jihaad waaye léegi gars yi moom moom moom la jaar ala kulli wàllu jihaad boobu sax euh, jamono yi la ñu weesu senegal dañu waxoon dañuy jël ay mesures si wàllu euh, soxna yi nga xam ne dañuy def burka. waaw maanaam ñuy kollu ci kaw bu ci suuf. waaw léegi nag la preuve euh, Mauritanie dañ fa am jamono jee benn waay bu ñu jàppoon. waaw ñu condamné woon ko à si affaire terrorisme. Mm-hmm. mais waa ji dafa dafa dafa rëccee Mauritanie ñu njorti ni dafa dugg ci dëkk bi. Mm-hmm. te li ko li ko génneloo. maanaam dafa defoon burka ba kenn xàmmeewu ko. Mm-hmm. léegi yow d' nga wala d' pour wàllu burka. ñi mm-hmm. nga xam ne dañuy kolu ba ci suuf seen kanam yi yëpp ñu nëbb ko est ce que nga pour ñu dindi ko ci suñu dëkk bi. Mm-hmm. waaw loolu moom bala ma koy wax damay wane ne salaatu asalaam ala ba pare pour wane la man loolu boo demee ci internet bi dafa na ci ay waxtaan yu bëri mosuma ci d' accord tudd ma ci d' accord mukk tey islam daaxuru ci te ku am xelit ku am xel rek laa wax bu jàng dara amal xel rek doo d'accord ci loolu daan la wax lu tax doo d'accord ak lu tax islam daaxuru ci gis nga dañ xam ñun ñëpp ne guddi mu am ak bëccëg guddi kese non bëccëg kese non foog guddi ak bëccëg am ñu xàmmee lu li lëndëm ak lu leer góor kese non jigéen kese non foog góor jigéen ak góor am jigéen am pour a xam dara prise kese non moyen kese non foog prise moyen mën a am pour courant mën a takk dégg nga wax baax. Mhm. su ko defee na kon ci islaam day eh, saxal na ci ayaar ko yu ba yu saxal ne yow yonent bi waxal sa jigéen ñu gëm yàlla ñi sa jigéen ñi xam ne sa sa sa d'abord sa soxna yow yonent bi ba pare ne nañu muuru nañu muuru ak soxnaay gars yi xam ñoom gëm nañ yàlla saxaaba yi gëm yàlla yi. seen jigéen nañu muuru ina den luy muuru jigéen lépp xawar la sauf xar xanamam ak ay loxo lu lii rek lu lii rek moom ci moom xawar la léegi su boobaa nag islam lu muy àtte ci loolu ndax da nga doon neex rek soxna si ñetti gis nga gis nga li nga tudd léegi li nga tudd léegi nu mu tudd ak ak séer mhm. bëri na ay a xamul tax gis nga ndaw jigéen nga xam ne jigéen la sol yére boo xam ne dafa tàng ci biti tab sa bi kii nii yaa ngi agressé góor ñi kooku dafa xaram tifaaqan waaye ki sol yére mën a kërus ba kenn xamul la itamit yow te dafa xaram tifaaqan laa wax moom dafa si dégg si dafa xaram dafa xaram xamul tax yonent bi li mu indi maa saada maa naqas xayru umuri awsatuha mbir mi la ci gën mbir mu nekk la ci gën rek la dégg doo gën moo tax ka nga xam ne dafa sol yére def saaru xawra yi di feeñ ci biti kooku agresseur kooku ku la kooku dafa dafa manqué bopp kooku manqué ngi noonu waaye ki yëre ba ne tus tamit dafa ëppal dafa ëpp lool. kon d' accord ma ci te mos ma ci d' accord it nag dama ne ki nga xam ne dafa sol yëre yëre bi ye oyof lool ci biti jigéen goon mel noonu kooku baaxul koo dafa manqué waaye ki yëre tamit mooy tus ba kenn xamut ne kii góor war jigéen la xamut ne kañ la yow góor war ji ñun li xam ci yow. ndax ban nekk wala doo ban sax xamuñ coow dara di ndax yor nga ar wala yor am luñ ci xam parce que li nga sol moo ko waree kooku dafa ëppal kon kee daa manqué kii dafa ëppal te wax naa ma ne yunte sax li mu indi maa saada maa naqas xëyru umur aw satuha kon nag li ñu la bëgg a waxal mooy sol yére boo xam ne jigéen naa bàyyi xar xanam comme ko islam santoon bàyyi ay loxo ku la gis xam ne jigéen la nga muuru des léegi li nga muur nii guddi la li fay ñëw bëccëg la li may kamaal kon du ma ci d'accord mukk kon kon kon boobu am na ci 100 ci ànd. boobu am naa ci. waaw fi ñuy fi rek mooy mooy ci wàllu Boko Haram. Mhm. Euh, Boko Haram tey jii si monde bi mënoo wax wàllu terrorisme te doo leen mhm. ndax ñoo ci féete kaw. Mhm. te mu ngi amee fi nga xamante mooy Nigéria. te sooy xool. Nigéria li fa am ci ay taalibe bàyyi sax. amul ci Sénégal. dë dëgg la dëgg la. dëgg mhm. waaw mooy li ma la léegi rek dama la waxoon nit ki dana baax set sell di sellal jub di juble xam di xamle maandu tey maanduloo nit ñi taaru tey taaral nit ñi nit dañ def yépp danga ma xëy mën ko am yow. waaye nag ci sa biir defar gi nga defar noonu dana ca am ñoo xam ne foog ñu tëla ci biti waaw mooy ci biti xataa yàlla subhanahu wa taala mi bind mi daa foon yi bëggoon njub dafa su ma neexoon ñëpp jub la ko su ma neexoon ñëpp jub mais ba léegi yàlla am am na ñoo xam ne yàlla dañ dañ ko yàlla bay wax naa yàlla amul safar te bàyyi leen fi ba léegi am na ñoo xam ne it dañ ne yàlla loo xam dafa dagg. am na xam ne ñu ne yàlla dafa jàng faqir la te it ay jaam yàlla lañ pourtant te bu neexee yàlla mu alag leen dëgg kon nga gis ne kon nekkee bàyyi ñes na laaw lu mu bëri bëri xam lu mu set set lu mu set set dem dem ba ni si dafa liggéey yàlla boobu at yëpp gëm ko fii lu tey dana ay sase yu yu yu yu nekk foofa ci biir foofu kenn mu leen dara fëttati ko génn. te gëmuñ bàyyi ñes na laaw waaw gëmuñ bàyyi ñes ba pare nekk na ministre ñes léegi pour yàq liggéey bàyyi ñes ba. yàq liggéey bi loolu la parce que yàq liggéey mooy nga nga nga formé ay ay ay ay ñu dugg ci biir jumaa yi xoolal jumaa jumaa sëriñ bi jumaa la ñuy wax jumaa mbaa jàkk fekk fi ay allahu allahu asalaamaaleyhi la mos a ngay fekk lu muy lii nga mën a jël bomb exploité ko pour ay nit ma ne yow bu ñu xut bu ñu xool bu ñu xut majuus li tuddee yéeféer pire yow la ñuy seet loolu moo dafa xaram tifaan day man loolu nag la bàyyee liggéey liggéey liggéey liggéey Nigeria tegtul ne dafa war a dafay de kàpp ministère dafay de kàpp fa mu am ay benn benn yu gën rocceeku di def lu nekk sul noonu la ñoo ne consul Cheikh Ibrahim tëdd nañ ko ba yemal xat ko ñu ko gëm ñaana ma ñu nga ànd moom ñu ngay sellal ñu ngay sikkar xoo la preuve rek rek bu fa bu bu bu bu gàmmu nisar ba amee mais sam day daw dañuy xool awasa yi wax yi ñuy wax di sa sax wolof mais ñu ngi indi xam-xam ñu ngi sikkaru laa bañ nañu di di di xol yi di tooy moo la xam ne kon kon kay def contre loolu kon bu bu ko ci bàyyi comme nag bàyyi moo fa nekk ëpp rafetal nag bi ko tudd foo bàyyi waaye nag yoonu bàyyi def caa nekkul ci loola loolu mooy la am waaw ñun ay gars yi saay saay rek lañ duñu baax le mukk parce que léegi nekkul ñu ngi mhm. euh, tamit nga wax sa sama kàddu gu mujj yi maa ngi nuyu umma ma nekk ma ngi wax ne islam moom rek mooy diina fa yàlla quran wax na ne ku sàkku beneen diina bu islaam yomal xam ne kenn du ko nangu kon ne ñëpp maa ngi leen di woo ne di ko ci diini islaam diini islaam da ko tax jox mooy jàmm ñi ñi bu ñu bëggee jàmm rek indi dugg ci islaam waaye dugg laa wax dugg waxuma dugg duggulu laa ata laj laju dugal baax waxuma ne waxuma ne ngay dugg duggul de bàyyi ma ne dugal waaye laa ata laj laj udduxu fi semaine kaafatan dougal sa lépp maa nga bàyyi waye bu dougal li bàyyi lii loolu nekkul ci islam tamit ma nga digal nit ñi encore grand dini islam grand diini yunta sa sam tariqa cheikh Tijaan nañ ci dugg tariqa bo xam tariqa mahdi fadal la alquran neena wa allahi istiqamu ala tariqatin la asqayna man qadakhan ndox mo set musallama ko bo nan jeug ñu jëg ñëw tariqa cheikh allah maa ngi oo ñëpp ci ci tariqa alaihi wasallam wallahi la yàlla nga tamay wax waye gannaaw tariqa sallallahu alaihi wasallam ma ngi oo ñëpp ci feydu cheikh Ibrahim bi feydu bo xamé dafa ñëw pour din li ci kiray yi bépp mbon boobu nekk ci yow mu dindi ko sax la ci yow njub kese lii ñëpp war ci dugg ay sëñ gis nga bu ñëpp nekkoon gëm yun talman salam gëm Cheikh Tidiane nii gëm ko laa wax de ànd ak moom ci li mu wax gëm Baye Niass àddina bi léegi àjjana ci ko suuf si man maa la wax lii kon maa ngi dégg ñëpp lii rawatina aussi waa Sénégal man Sénégal laa dëkk te Sénégal dama ko bëgg parce que laa dëkk waxta yun sa waxoon na ci àddus mu ne xubul wate mi ne iman boo ko ci ngëm yàlla mooy gëm sa réew man gëm sama réew gëm naa sama parce que Baye waxoon ne fa généralu يأوي تحت ظل محمد ويبدأ رامد جلسة واحدة من فما سنقير هذا فسنه شقيم حليل باتل لن لا يؤيد رويدكم أنا كنستي kon bàyyi li la wax Sénégal daal Sénégal kon ki ñu ngi ci képp rasul alayhi salaatu wasalaam kon ñu ngi sant yàlla baax di wax ne rawatina encore waa Sénégal waaye rawatina aussi ñun ñun taalibe Cheikh Ibrahim lépp lu gën a rafet ci luy rafet nañ ci nekk ma ngi siyaar ba dee ndokkeel yal na yàlla def sama uti mu nekk ca kaw ca zaahir ca baatin ca baatin wasalaamaaleykum Cheikh Ibrahim